fédération Zadul Musafir ci njiital Serigne Moussa Dieng Kala di mbooloo moo xam ne ñu ngi nekkee ci réewum kanada ñoo ñëwoon ci Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides doon amal seenub ziyaara ngir jébbal ko seen addiya mu jëm ci liggéeyub complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi di université bi nga xam ne Serigne bi moom lay liggéey ci dëkk bi nga xam ne moo di Touba addiya ji ñu xayma ko ci million deux cent dix mille francs CFA ñu ànd ko ak Serigne Bassirou Mbacké Xelkom ñëw jébbal ko Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir bi ñu agsee nag leeral nañ ko lépp loo xam ne moo jëm ci liggéey bi di àddiya joo xam ne mbooleem fédération Zadul Musafir ñoom ñoo koy dajale juróom benn weer yu nekk mu nekk loo xam ne dañ koo jaayante dañuy ñëw jébbal sëriñ bi seen àddiya ju jëm ci université bi ndax juróom benn weer yi weesu indi woon nañ seenu àddiya ñu xayma woon ko daanaka lu jege ci 15 millions de francs fa lépp fas yéene ànd ak sëriñ bi liggéeyub complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi ba muy noppi

parce que lan lañ dundee. lan lañ dundee. waaw lan lañ dundee. loo xamante ne dañ koy euh, juróom-benn weer yu ndaw nga xam ne bi ñu koy tàmbalee. négaloon nañ la ko ba nga ñaanal ñëpp mu doon taw yoo xam ne saa su nekk rek ñu ngi koy mën di ñaan. taw fex boobu ñu ñaan doon loo xamante ne rek day tax ndax ñu ngi nekk euh, mu ngi fi rek dañu ko dugg ba ànd ak yow di ñaan ko ñaan ko defal la ko ànd ak yow ndax sa yàgg moom mooy li nga xam ne mooy Canada nag dafa dafa bindoo noo xam ne gox yu fasantikoo la waaye ñëpp dañoo booloo rek ngir di la ko jëbal juróom benn weer yu nekk njiit li nag euh, nga xamante ne njiitu bi moom mooy Kajum Kala muy ànd ak yow liggéey bi suñu borom tamit defal la ak dund bu ànd ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides santaan na leen bu baax a baax ñoom fédération Zadul Musaafir ci pasteef gi yitte gi ak farlo gi nga xam ne saa su ne ñu ngi koy wane mu jëm ci liggéeyu complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi ak ni nga xam ne noonu lañ àndeek moom liggéey bi waaye ñaanal leen liggéey bi ñu gën di ko mën